fii waaw ñu bañ justice mu ne jaru ko loolu kay leer na demandé nga ne nañ teg fii vidéo yi ñun ñëpp a ngi toog te du justice bi ñu ne nañ ko demandé waat fan laa waxee ci audience bi ñu man yorewuma dara yorewuma audio yorewuma vidéo ñu loolu wax choc tout le moo ko bind site bi mu ngi tudd sunu buzz sn waaw waa Pastef fii la surtout Pastef fii la ah, moom la na waa Pastef fii la surtout Pastef fii la waaw ah, moom la. na Sénégal yi xam ni ñii damaa leen ak yàlla. mais yow ko xam jom nga dëgg ñii fi toog ñëpp dégg nañ man man ay alaaji yoruma benn benn benn yoruma. yow daal nee nga nañ teg kele bi fii ñëpp dégg nañ ko nga ne nañ teg kele bi président moo bañ. man ma ñaan daa war a nangu. Eh, nee damaa ñaan ñu may ma teg ñu bañ. waaw président bañ. yëpp ci